ñi ngi leen di leen sant di leen gërëm di leen balu ak yéen di jël kàddu nag ci jataay bu kawe bi ci tur comité d'organisation bu Magal Touba te njiit di sëriñ Bassirou moom si Abdou Khadir ak ci turu sunu wayjur baax wi toog di sëriñ Ahmadou Badayu nga xam ne lépp loo xam ne jëm na ci wàllu université bi di wàllu xam-xam ak lépp lu jëm ci wàllu culture ci màggal gi moom mooy kilifa gi kon sëñ Jili am nañu mbégte mu rëy ci teew fii ci sawet ci jataay bii nga xam ne jataay la bu nu yàkkamte woon ndax organisation màggal gi bi ñu ko tàmbalee léegi ci anam gii ñu koy defee léegi moom ab diir mën na fukki at ak lu topp mel na ne xeeti jataay yu nekk def nañu ko am na boo xam ne sax fii ci colloque bi dajal nañ fi ay donga daara ñu bind fi ab kaamil ci benn bis foog naa su ma juumut 2014 la war a nekk waaye nag jataay bu mel nii moom musa am moo tax bi nga xamee ne wax nga ci ak kilifa yi ñëpp rafetlu ko ñëpp ne la kat na jël nga dugal ko ci programme màggal gi ndax lépp loo xam ne ñu ngi koy defal sëriñ bi alxuraan moo ci war a jiitu moo tax day mel ne lu leen sunu borom jagleel la fagguleen leen ko muy seenub cër li ngi doon wër lépp yàlla feeñale ko ci seeni loxo kon ñi nga xamal ñëpp ne jataay bi jataay la boo xam ne sëriñ bi rafetlu na ko te def nañ ko ci calendrier Magal Touba at mu nekk buñ ca tolloo nii ñu ko amale bu soobee yàlla noonu lañ koy fas yéene wéyal te ren xaj na bette na waaye li muy bette bette kenn ku nekk gis na wàccaay yu rëy yi nga xam ne def ngeen ko ci kon ñuy rafet njort ci ne ci édition yi nga xam ne mi ngi ñëw ci sunu kanam foog naa ne lépp loo xam ne ñu ngi ko ci séentu danañ ci am loo xam ne lu ci kawe sunu njort la kon sa njiili dañ lay amel ak cant yaa mbooleem mboolem kuréel gi nga àndal yëpp amel la ay ngërëm ci xalaat bu kawe bu rafet bii nga xalaat ak ni nga ko defee ak fi nga ko defee ak ci waxtu fu ne waxtu bi nga xam ne si ne bii jëm ko def muy ci biir màggal Tuubaa gi kon na nga xam ne lii di comité d'organisation bi fas na ko yéene ànd ak yow muy ren ak at yee di ñëw ca kanam di ndokkal di nag xale yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew di waaj tàmbali concours bi di ndokkeel seeni sëriñ yi nga xam ne ñoo leen di jàngal di ndokkeel seeni wayjur di leen ñaanal yàlla mu def leen ay mag